ndak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kees am ngeen gan Cheikh Béthio Thioune dikkat na observateur las populaire wal fajir ak enquête ku ca nekk nañu Cheikh Béthio Thioune ma ñu gaare woon ca kaso ba ca rëbës mën nga léegi ñu delloo dem gaare ji ko ca kaso ba nekk ca benn dëkk ñaari gaar wal fajir nañu moom jiital cantaakon yi biig la ko agent yu bib yi brigade d'intervention polyvalente génne ci cellule am ba nekk ca rëbës dem yóbbu ko ca Thiès las yéene kay nañu yóbbu ko gee du njabootu Cheikh kenn yëgu ko ci ci wal kenn ci awakaay di maître Ciré bu ñu sàgganul danañu boycotté audience sur bi ñuy amal tey ji ci altine ji ndax Cheikh Béthio Thioune ak anam yi ñu doxalee ak moom dara ci rafetul yéenekaay bi nañu waaye Cheikh Béthio Thioune moomee am na lenn ci mandarga ñuy gis yoon di doxale ak moom bu ñu sàgganul Cheikh Béthio Thioune ci bàyyi ko la ñuy mujj Cheikh Béthio Thioune aw turam dàng ci xët mu njëkk observateur yéenekaay bi jox kàddu gi Mouhamadou Moustapha Seydi magistrat dooni directeur des droits humains muy a mbirum lig ni ko lay observateur nañu tey ji la koy atte ca tribunalub Thiès yéenekaay bi jàpp altine tey ji altine joo xam ne lu ne mën na caa xaaj ci Walfadjri Grand Place ne ko wax ja du loole ndax Cheikh Béthio Thioune ma ñu yóbbu ca Thiès tey ji dana daje ak six d'instruction bi lig ni ko lay it dana janoo ak attekat bi loole lépp ca tribunalub Thiès lay amee populaire nañu wax ji des na ne bu weesoo mbirum Cheikh Béthio Thioune ma tribunal ba di xëye bu weesoo mbirum lig ni ko lay ma tribunal ba di xëye am na meneen mbir moo na ci tribunalub ko xëye mu di mbirum cimenterie Dangote loole tey ji ci altine dañu koy atte ca tribunal bu Thiès ña ñuy atte ca tribunal bu Thiès boobee kenn ca di Luc Nicolaï sunu lamb xëy ñu xamal ne tey ji la ab attem yéenekaay bi samp laaj ndax ñi nekk ci lamb ji tudde son bopp ay VIP danañu dem teewe ji la yob Luc Nicolaï boobee am déet ba tey ma des ci sunu lamb des ci làmb ji ak kadduy Cheikh Tidiane Faye mi premier vice président bu CNG la mu fa xam ne moo di biir arène bi mën nañu fa wax lu ne ba mu des xaalis bu salte xaalis bu salte dëgg u ceeb bi di Moustapha Tall nañu ko ko bëgg a gis xool leen ko ci ceeb bi wax ji mi ngi ci xët mu njëkk direct direct info Moussa Fatal di fa leeral li tax mu bàyyee importé ceeb taaleen bi ne nguurug Sénégal yoreel na importateuru ceeb yi lu toll ci ñeenti téeméeri million ak fanweer ak ñett boobu ak léegi toll na ci ñeenti at li ko gën a ray nag mu ne waa duwaan ci la ñu bokk ndax ñoo jël dossier bu baaxul dajaleel ko tegal ko ko ngir rekk mu mën a génn ci kaso bi benn milliard ak juróom-ñeenti téeméeri million génne nañu ko ci kontam moom Moussa Fatal ngir ñu mën koo bàyyi mu ñibbi këram kër kër gi Abdoulaye Wade la xëy ak ñun ubbi leen journal bi Abdoulaye Wade la mu bëgg ca Macky Sall moo di mu jox ko gëdd jox ko dayoo xam ne njiitu réew la fi woon yenn traitement yi mu di ko ko mayel te loolee la Macky Sall lànk kandaara ne du ko ko defal Macky sax la mu jàpp moo di yëf ay caaxaan la journal bi ñu li ñuy wax ku ko weddi laaj ko Bruno Diatta moo doon dem di dikk lu Wade wax mu yóbbul Macky lu Macky tontu mu yóbbul Abdoulaye Wade diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall yamul foofee leneen a ngi ci enquête yéen a kaay mu di li xew jamono ji audit yeeg ni ñu koy doxalee cantaakoon wax Macky Sall journal bi lañ leen di tegal daje bopp amaloon nañu ko ca pale Macky Sall nee jëm loolee dañuy sonal seen bopp rek waaye lu toll ne tarfatal ay nit du ko dellu gannaaw ku bëggub defante fi nga koy fekk ñu fekk ci xët mu njëkku laas du soxal kërug retraite gi di IPRES journal bi nañu ay jafe-jafe ñoo nga ca bokk na ci marché gré gré boo xam ne toll na ci téeméeri million ak it bureau conseil d'administration boo xam ne ba fi nekk ni kenn yeesalu ko li yees ci réew koy def ngir gën a dooleel wàllu tourisme ci réew bu Sénégal observateur ne ko concert ba ca njëkk ca Casamance la koy defee te ci weeru mee la koy def li ñu def sandarma bi nekk ci Walfadjri Grand Place day jeexale ak yéen yéen kaay bi nañu yëf ya ma nga xawee ca Kër Massar benn apprenti moo fa tëyëb sandarma dóor koy kurpañ ba mu far ne ngalañ ci suuf